jéego bi nga xamante ni sunna am na ko ci boobu lislaam ñu dégloo ndax ñu bañ a bokk si li nga xamante ne ñoo doon wax kàddu bi yàlla subhanahu wa taala wax ko ci suratul mulk وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا Ada puasa. déglu dinaa dégg di déglu musu naay suufureem def wasaab waaye kon الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant yàlla subhaana suñ boroom ku ñu sàkk ku ñu bind te ñun ñépp ci moom lañoo dellu subhaana ñu ngi koy ñaan suñoo dellu yàlla na ko yàlla rafetal di ko ñaan xewal ak mucc ñu wàcce ko ci sang bi di Muhammad doomi Abdillah juddoo Makka gàddaay dem Madina de yàlla moom ko fa ñu rob ko fa yal ko yàlla defal xewal ak mucc defal ko ay njobootam defal ko ay àndandooram defal ko képp koo xam ne dëgg nga sa tànk fam dëggoon tànkam gannaaw loolu di nuyu mbooloo mu fi teew di leen wax ramadan mubarak yaa nañu ko yàlla nangul di nuyu Sheikh Bashir ak ay taalibeem di nuyu képp koo xam ne yaa leen ay jàppale maa ngi leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu tànn thème bu am solo mooy topic bu am solo mooy sunna ñu bari réeree ko mbir ñu bari xamuñ ko te fekk mooy yoon ba nga xam ne moom la yàlla xàll bi egg àjjana képp ko amul sunna doo egg àjjana képp koo xam ne ñàkk nga sunna du possible pour nga dugg àjjana su fekkee ne dégg nga sunna nga dëddu sunna jox ko gannaaw lan mooy sunna làkki arab la mooy yoon soo déggee sunna mooy yoon ci làkki arab bi neen waaye soo demee si islam wala lu ñëw a char suñ ne sunna luñ si namm mooy yoon wa nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xàll na ko lii mooy sunna yoon wa nga xam ne sang bi alayhi salaatu salaam yàlla jox na ko ko loo tax suñ ne sunna rekk mooy lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def walla sang bi sallallahu alayhi wa sallam digle ko walla sang bi sallallahu alayhi wa sallam gis nit ñi ñu ko koy defee terewut len ko lii mooy sunna ma baamtuwaat ko suñ ne a yaa booy lii mooy sunna lan la lool firi moy ne lii la fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def walla lii la fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle walla nii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gisee saxaaba yi ñu koy defe mi noppisi si lii mooy sunna bon sa doom su la ne yaa walla mu ne la baay booy lii mooy sunna xamal ne loolu la tekki lool la firi loolu la firi sunna nag yàlla moo ko wàcce comme nu wàcce alquran yàlla mu wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnaasi ma nuzzila ilayhim dinañ déggee si aaya bii ne ndekete yàlla moo wàcce alquran moo wàcce sunna loo tax doo ma mën wax ne man de alquran la beug sunna moom suur ko ñaari ñoy ànd ñaari père la ñoo xam duñ meuna tagalo tàggaloo loo tax imam rahimahullah mun na nga xamne as sunnatu hiya al islam wal islam huwa sunna mu na nga xamne islam moy sunnah sunnah moy islam ñaar la ñoo xam ne duñ mën a tàqalaat ba loolu tax ñu ngi oo mag ak ndaw góor ak jigéen ne ñu ñëpp dañ war bokk dugg ci néeg bi di néegi sunna maa ngi oo mag ak ndaw góor ak jigéen ñu ñëpp ñu bokk éeg ci gaal bi di gaali sunna لتا إمام مالك رحمه الله من السنة سفينة نوح من سودك سنة لا ينتبه عليه الصلاة والسلام نكون أك أي صحابة سودك سنة موي قال نوح عليه الصلاة والسلام من من راكبها نجا képp koo xam ne nga war nga gal googu dugg nga si gal gi naja kooku texe na wa man taxallafa anha xariq képp koo xam ne tamit gaal googu raw na la xariq kooku mooy ka nga xam dina nur dina lab si ndox moomu ñu dénkee si ne képp koo xam am nga sunna yow di nga texe waaye képp koo xam ne nga sunna nga jël sunna tegee ko boor ak loo manti jël doo mos mucc doo mos a bon yàlla azza wa jalla moo wàccee lu ñoo wax al dhikr wa anzalna ilayka dhikra aaya bi boroom tafsiri ñuy firi alquran ñoom ñépp d'accord ne dhikr fii mooy lan as sunna li tubayina linnaas dafa niroo yàlla mu ne muhammad ne sallallahu alayhi wa sallam jox naa la sunna ngir nga leeral la nga xam ne moom laa wàcce si nit ñi lan la yàlla wàcce si nit ñi mooy alquran loo te alquran moom dafa soxla sunna alquran moo gën a aajo sunna diina sunna jëm si alquran lañ bëgg a wax mooy ne alquran sunna moo koy firi moo koy firi soo déggutee sunna loolu tax ustaas yi waare te xamuñ sunna duñ mën a firi alquran firi leer ngir lan la leen war dimbale pour ñu firi alquran teg ko si dëgg teg ko si njub mooy sunna ñoom nag amuñ sunna loo tax lu ñu waxee rek saa yu ñu waxee dinañ bàyyi dinañ jàdd yoon wi ngir lan yàlla mu ne wa anzalna ilayka dhikra yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam dama wàcce si yow lu ñu wa addikr mooy sunna ngir lan li pour nga leeralal nit ñi ma nuzila ilayhim la nga xam ne yàlla moom la wàcce si ñoom leeral boobu sang bi alayhi salaatu wasalaam war koo leeral alquran dañ ko xaaj si ñaari xaaj benn bi mooy leeral baat bi leeral xarf bi jottali ko nit ñi comme alquran yu ngeen fi dégg xale yi jàng ko fi jàngin bi rafet borom bi moo ko jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam pour mi jottali ko xeet wi baat yooyu ngeen dégg na ngeen xam ne kàddu yàlla la kalaamullah kàddu borom bi la subhanahu wa taala bon yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ko yàlla digal pour mi jottali ko jottali na ko si fànna boobu beneen fànna bi beneen xaaj bi mooy jottali lan la baat yi firi lan la baat yi tekki yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ñu koy jottali loota sang bi alayhi salaatu wasalaam dinañ ko seedal ne moom joxe na yépp la ko yàlla jox yépp la ko yàlla digal pour mi jottali ko xeet wi jottali na ko ngir yàlla mu ne ko yaa ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik yow yónnenti yàlla bi na nga jottali la nga xam ne yàlla moom la wàcce jógee si borom subhanahu wa taala bon yonent bi alayhi salatu wasalaam jottali na yépp loo tax aïcha radiallahu anha wax na mu ne man haddathakum anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallama katama shay'an أمره الله بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية من كيب كو خمنا عائشة سنيا عائشة موي وخ أم المؤمنين من كيب كو خمنا وخنا لني يننتبي صلى الله عليه وسلم أمنا لم جنج أمنا لم نبو ولا جخنا كو كي جخل كو كلي دين الإسلام دونون دي oustaz boo dégg mu naan la lii moom duñ koy joxe nii xamal ne waxut la diine wax na la leneen koo dégg mu naan danga may fekk kër ma man la koy jox duma ko mën a wax si rajo xamal ne waxut la diine leneen la namu lu du diine waaye yonent bi alayhi yàlla daf ko ne yaa ayyuha rasul jottali waaw luñ la digal pour nga jottali ko kenn kool la nga naan ko waaw nañ dem si ron nañ dem si suuf ñëpp waruñ koo dégg bon yow amewuloo diine leneen nga amee lu dul diine te nit ñi dangeen ngeen wala ñu leen wax diine ak ñu leen wax lu dul diine ngir yowmal qiyaama képp ko fa egg te ànduloo diine bu set xamal ne doo gañe yaa nañ yàlla musal si loon Aïcha mu ne képp koo xam ne wax na leen ne yonent bi alayhi salaatu jenc na dara si lu ko yàlla digal pour muy jottali ko na xam ne fen wu rëy la tegal yonent bi alayhi salaatu wasalaam bon yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ko yàlla jox pour mu jottali ko jottali na ko wala jottali wut ko ñu ñëpp dinañ d'accord ne jottali na ko ngir mos na koo wax ba mu demee xaj ay junne junne nit wër ko mu ne leen ndax lu ma yàlla jox jottali naa leen ko ñu ne ko wallahi jottali nga ko ba pare laaxee nga biir xeet wi lula la yàlla jox lula la yàlla dénk joxe nga ko mi tàllal baaraami sedem si ko asaman munan yàlla ne fashhad allahumma ashhad allahumma ashhad borom bi yan nga nek suma seede yowmal qiyam lo tax qed wi suñ deme be nga xamne dinañ ko mim ñu ne yonent bi alayhi wassalam jotale wut yàlla borom bi subhanahu wa taala moy nek sedem yal nañ yàlla defal jàmm bon alquran doo ko mën a dégg doo ko mën a dégg te déggoo sunna nañ xam lii loo tax sunna lu am solo la ñun nag ñu jiitu wax nañ ñu wala xamal nañu sunna si xamin boo xam ne mun naa wax ne dafa manqué ba nga xam ne looloo tax ñu bëri si ñun fullaluñ luy sunna ngir nuñ ñu ko waxee mooy sunna mooy loo xam ne soo ko defee am si tiyaabo soo ko defut doo si jëlee dara nii lañu ko waxee te sunna yépp nekkul ne nii la mel am na sunna yoo ko xam ne soo ko baxee nga nekk kaafir am na sunna yoo xam ne soo ko baxee nga nekk faasiq ngir sunna soo ko déggee léeg mooy diina ji yépp da xam ne yàlla jox na ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam bon nañ gëm ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam la yàlla jox sunna ak alquran ñaar yi duñ mën a tàggalant duñ mën a tàqalant benn waay mos na ma wax imran ibn husayn kooku saxaaba kooku dafa toog si jàkka ji taxaw di leen waare naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na comme am na ñu koy wax ak seen xadis yu bari yi xaw ma foo leen ko jëlee sonnal nit ñi rek ngeen fi nekkee loolu jullit du ko wax xadis soo ko déggee wax naa la ko sànq mooy la yonent bi alayhi salaatu wasalaam def wala la yonent bi alayhi salaatu wasalaam digle wala la yonent bi alayhi salaatu wasalaam gisee nit ñi ñu koy doxalee mi noppi si waa ji ba Imran ibnu Xuseyn di nettali ay xadis di nettali waxi yonent bi alayhi salaatu salaam di leen nettali sunna benn waay jóg mu ne ko yaa aba abdarrahman يا أبا عبد الرحمن دعنا من هذا وحدثنا بالقرآن ñu ngi نيان ñaan لا نوبال ني سي واخ جي ji واخ nga netale ñu alquran déglu luko sahabi wax mu ko adin ay iqtarib jegema mune araita anta wa ashabuk ay fi hada ar ray law wukkiltum ila alquran atajiduna fihi anna salata dhuhri arba'an mu ne ko yow dama lay laaj ak ña nga àndat si xalaat bu bon bi xalaat bu ñaaw bii suñ leen joxoon kaamil bi kaamil bi mu ngi nii ku ànd ak waa ji rek ñu jox la kaamil ñun kuñ àndat mooy Imran ibn Husayn yow soo àndeek waa ji ñu jox la alquran laaj bi Imran ibn Husayn laaj waa ji ñu laaj la ko nga jénne ko fi mu ne ko yow ak ña nga ànd ak ci xalaat bi suñ leen joxoon alquran ngeen gëstu ko jàng fatiha baqara benaas ndax di ngeen fa fekk ne julli tusubaar ñeneenti ràkka kana ko mun a jénne amul kenn kuy indi aaya buy wax ne julli tusubaar ñeneenti ràkka la julli tàkkusaan ñeneenti ràkka julli timis ñetti ràkka julli gexe ñaa ñeneenti ràkk la soo demee màkka di tawaaf juróom-ñaari tawaaf la amul kenn ku ko mën a jénne fi bon loolu tax Imraan ibn Husayn mu ne ko mbokk maa lay ñaan ngeen la wax ji ñu leen nettalil jël leen ko soo leen ko jëlut dingeen ngeen réer ba pare di ngeen réeral nit ñi loolu tax saa bañ sunna waarekat yuy bañ sunna di xeex sunna dinañ réeral seen bopp ba pare dinañ réeral suñ yaay ak suñ baay dinañ réeral suñ sistas yi ngir nit ki ñëw mu ne la yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam nii la daan defee kii ñëw naan la ah lii dee amul solo audu billah daw na yaram yonent bi alayhi salatu wasalaam nam daan doxalee su loolu amutee solo ana kanay mun a doxalee neneen mi am solo amut bon nañ gëm ne sunna moo topp si alquran te sunna dinañ si ñëw moom mooy firi alquran suñu ko waxtu bi maye soo déggutee sunna amoo sunna doo mën a dégg alquran déggin bu wér te soo déggutee alquran déggin bu wér bon yow déggoo diine islaam déggin bu wér ñu gëm ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam lépp loo xam ne yàlla jox na ko ko jottali na ko waaye am na aaya yoo xam ne sax su doon man mii walla mu doon yow mun naa am duma ko nangoo jottale ngir lan yàlla dafa gàcceel yonent bi alayhi salaatu wasalaam su ma def ko gàcceel mooy dafa juum mi wan kook mistake yooyu noonu dafa nuru daf koy jàggant di ko teg si yoon dafa niroo daf koo yar indi baat yoo xam ne baat yu diis la ma jox la misaal aaya bi nekk si suratu ahzab wa id taqulu lilladi anama allahu alayh wa anamta alayhi amsik alayka zawjaka déglul wattaqillah وتخفي mubdi wa ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه بعد يديس لا يالا واجه سسنج alayhi salatu wassalam si gàttal araab yi dañ amoon lu ñoo wax at tabanni mooy jël doo jël nit ki farale ko sa bopp ne diw sàngam suma doom la su dee sax doon te fekk juróo ko alquran ñëw daa ji loolu bi alayhi dafa jëloon usaama mi nekk doomam wala zeyd dafa jëloon zeyd mi nekk doomam zeyd ba ñi di wax ne zeyd ibnu muhammad di ko dàkkantele yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndekete zeyd am na soxna soo xam ne ñu koy wax zeynab bintu jahsh yàlla dogal na si arsh ne zeyd dina tàggoog soxna sii di zeyd soxna sii di zeynab bintu jahsh te yàlla dogal na ne ku koy doonu ku koy jël mooy sang bi sallallahu alayhi wa sallam loolu yàlla wan na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye diis na si moom ngir lan su takkee doom ji wala su takkee jigéen ji nit ñi di wax ne jëkkëram mooy doomam bon nit ñi dinañ waxtaan loolu dinañ ko ŋàññi si loolu dinañ ko suufeel looloo tax mi diis su yonent bi alayhi salaatu wasalaam pour mi takk ndaw si waaye seetal yàlla azza wa jalla lam ko wax mu ne ko wattaqillah nanga ragal yàlla wa tuxfi fi nafsika ma llahu mubdi yaa ngi nëbbu loo xam ne yàlla dina ko feeñali seetal baat bi ngay ragal nit ñi te yàlla moo yelloo ñu ragal ko seetal baat bi diis na su doon man duma ko nangoo feeñal waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ko jàng nit ñëpp dégg ko ba loolu dafay wane ne sang bi alayhi salaatu salaam bahu dara loo xam ne yàlla tabaraka wa taala jox na ko pour ñu jottali ñu ko te jottaliwul jottaliwul ko sallallahu alayhi wa sallam léegi ma gaaw pour ma wan la ne ndekete alquran sunna moo koy fiir soo déggutee sunna xamoo xadiit doo mën a dégg alquran déggin bu rafet loo tax maa ngi leen ñaan du leneen mooy tax may wax waaye ngir laaxee leen biir képp koy déglu waareem na nekk borom sunna ku fonk sunna ku gëm sunna kuy doxal sunna kooku mooy ka nga xam ne dina la wax loo xam ne moom la yàlla namm si alquran waaye keneen koo xam ne keneen koo xam ne bëggut sunna keneen koo xam ne diisalut sunna fonkut sunna soo koy déglu dula la jox déggin ba nga xamné yàlla tabaraka wa taala mom la nam ci alquran so demé suratul maida borom bi mu ne wasaariqu wasaariqatu faqta'u aydiyahuma sacci bu go ak sacci bu jigen na ngeen dog seni loxo déglul baat bi sacci bu góor ak sacci bu jigen na ngeen dog seni loxo ñun si làkki olof walla soose walla beneen làkk sàcc mooy ka nga xam ne jël na dara loo xam ne moomut ko sàcc na ko ak lum tuuti tuuti nag sàcc la waaye làkki arab bii sax ñuy wax soo demee si ñoom kooku tamit sàcc la comme pen bii nga jël ko sàcc ko ñu ne lan la sàcc ñu ne pen waaye soo demee si sharia kooku duñ ko tuddee sàcc ngir soo ko tuddee sàcc dinga nga dog loxoom te ku sàcc pen pen jarut ñu dog sa loxo bon sàcc si suñ làkk ñun ak sàcc si lugatu shari si kalaamu shari si lisaanu shari dafa ute lana lay wan loolu sunna moo lay wan loolu sunna mu ne lan laa qataa illa fi rubu'i dinarin fasa'ida la qat'a illa fi rubu'i dinar fasa'ida ndeke dafa am limbo boo nit ku su ko sàccee moom lañ war a dog loxoom waaye su matut lim boobu noonu duñ a dog loxoom bon kooku du sàcc si loxatu sharia waaye yow soo arab rek nga ah yàlla de mu ne wasaariqu faqtau na ngeen dog sàcc la ba di nga gis ne di nga dog koo xam ne di nga dog loxo koo xam ne jarut lem jël nga dok loxoom ba loo tax dégg sunna lu am solo la nga ñëwaat si aaya bi mu ne faqata'u aydiyahuma na ngeen dog seeni loxo loxo soo ko lu ko dooree si baaraam bi ba si bi fii loxo la si làkki arab al yadu tutlaq ah lu ko dooree si baaraam yi fii ba si mbagg mi fii yëpp loxo la bon yow soo déggee araab bi rek nga ne ah yàlla mu ne faqtau aydiima na ngeen dog seen loxo bon di nga gis ne fii ngay doore di nga jël loo wartu jël si loxo te fekk fu lam bi di tegee fu mooba naka montor bi di tegee foofu lañ war a dog wàcc si suuf bon pour ñu dégg alquran dinañ dellu si sunna suñ xeebee sunna nag diisaluñ sunna ñu nekk si sunna ñu ne nii duñ niti dara ñii day ñëw wecc suñ diine ñii day ñëw tere ñu lu maam yi daan def wallahi dinañ taseeg borom bi te duñ am diine bu set foog ñu dégg diine na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam déggee na ko Aboubacar ak Omar déggee benn waay dafa dem si benn borom xam-xam mu ne ko dama bëgg nga firil ma siraatal mustaqim Ya mu ne ihdina siratal mustaqim yoon wu jub woowu noonu moom laa bëgg nga wax ma ko mooy lan lan la firi boroom xam-xam bi mu ko soo déggee yoon wu jub wooyu abubakar ak omar allahu akbar kana mun a dégg lii mooy abubakar ak omar sa lañ nekkoon loolu mooy yoon bu jub bi képp koo xam ne mooy nga la abubakar nekkoon mooy nga la nga xam ne omar moom la nekkoon moy nga la nga xamne sahaba yi non lañ daan dundé ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam bon yow amo yoon wu jub waji waa jaaxal ko lol mi dem ci benen imam mu diw sàngam de dama ko laaj siratul mustaqim munan naan ma Aboubacar ak Omar ñoy siratul mustaqim imam bi mu wallahi nasahaka wallahi la hin labir wallahi lam la wax moy deug bon nañ fexe ñu dégg diina nako sahaba saxaaba yi déggee woon déglul yàlla من ومن يشاقق الرسول دقلوا الآية دي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا كيف قو خمنا موينغا ومن يشاقق الرسول nga moy yonent alayhi salatu wasalaam ganaw bu deug lere nañ wayattabi mi top ghayra sabilil muminin yon bo xamne du yoni julit yi wa ma laaj len su julit yeb dajé won ñeneen nek fos sahaba yi aboubacar ak umar julit yeb suñ nekkon ben hol comme nuñ nekkee benn xool fii ñeneen toog fii mooy aboubacar ak umar ñeney toog saxaaba yi ñooy toog fii ñun ñu toog fële bon soo toppee yoon wudut yooni ñooñu yàlla mu ne nu wallihi ma tawalla foo jublu rek foofu la la yàlla di jubal foo jublu rek loo tax nit ki mii jaamu mayig bi mayig bi nga koy jaam nga gëm ko gëm gu wér wallahi seytaane dina ñëw si gannaaw mayig bi di la oo nga koy uyu ngir lan moom nga gëm nu wallihi ma tawalla dinañ la jubal ci la nga xam ne moom nga jublu in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw déglul yàlla lu mu wax saxaaba yi mu ne ñépp suñ gëmoon la ngeen gëmoon suñ gëmoon la ngeen gëm yéen te daw na leen wóor péng ne ñii am nañ jub ñu déggee si nag bon ñun dañ war a gëm la saxaaba yi gëmoon suñ demee ba nga xam ne gëm nañ la ñooñu gëmutoon ba nekkuñ si njub yaa nañ yàlla teg si njub lañ bëgg a wax bari na lool bari na lool ngir boroom xam-xam yi bunt bi dañ ko itteel torop dañ koo itteel torop waaye aaya ya nga xam ne ñëw nañ su alquran ñëwee te su na ñëwut leeral ko bonoon du leer ma jox la beneen misaal borom bi mu ne alladina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون آية بمنى الذين نيانا نعم خمنه آمنوا قمنا ولم يلبسوا ولم موي جخسوين ها جخسوين إيمانهم ولا رخون إيمانهم سن قم يالا بظلم أكتون دقلوا الأكتون seen gëm yàlla jaxasewuñ ko raxuñ ko ak tooñ yàlla mu ne ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ñooñ la yàlla tagg yàlla mu ne ñooñ ñoo am dal gis nga soo amee tawxiid dangay am dal waaye soo amutee tawxiid su muus bu ñuul rombee sax nga tiit am na ñoo xam ne muus dafa romb sax mi tiit walla nga génn suba teel dajeeg benn jigéen nga ne eh tey moom toskarana ah, su ma yoon bi du baax yow yow doo am dal bés bu nekk si ragal ak tiit rek ngay nekk soo gisee eh, eh, fu tooy nga ne mun naa am saafara lañ fi def yow moom doo am dal ngir lan amoo tawxiid maa ngi leen ne oo oh, ngeen ñëw si tawxiid wallahi soo amee tawxiid nga kennal yàlla wéetal ko da am dund bu neex dund bu nooy dundu bu dal su nekké na sax ya gëna ñak réew mi yëp do ko fi way so amuté tawhid ak lo munti am alal alal wallahi do nopal ala bi dikrillaahi tatma'innul qulub turi borom bi subhanahu wa taala wetal yàlla borom bi subhanahu wa taala fof la xel yi di dalé bon ya nañu yàlla may xel mu dal aya bi soko déggé dafa niro saxaaba yi dañ déggee zulmu tooñ bi dañ teg ne bàkkaar la te ñun ñëpp xam nañ ne amul kenn ku mucc ci bàkkaar si ñun ñun ñëpp ay bàkkaarkat lañ amul benn doomi aadama buy ekkati loxoom ne man mosuma mooy yàlla ndax am na fi déedéet amul du fii rek adduna bi yëpp la yàlla borom bi subhanahu wa taala xam na loolu mu ne yaa ibaadi yéen samay jaam innakum tukhti'una bil layli wan nahar yéen da ngeen ne juum guddeeg bëccëg wa ana aghfiru dhunuba nda man maay ka nga xam ne mooy jéggal baakaar na ngeen saako njéggal si man ma jéggal leen saxaaba yi bañ déggee aaya bi yàlla di wax ne ña nga xam ne gëm nañ yàlla te seen gëm yàlla raxut ak tooñ ñu teg ne tooñ boobu mooy njuumte def baakaar ñu womatu booloo dem si yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ne ko ah yàlla mu ngi wax lii de te ñun de tiit nañ mu ne mu lan la mu ne yàlla mu ne ña nga xam ne gëm nañ te seen gëm yàlla raxuñ ko ak moy ak tooñ te nag luñ la bëgga a laaj ana ku tooñut yàlla si ñun mu ne ko déedéet na ngeen ko déggee ak nam amee dafa utee mu ne xanaa déglu leen luqmaan lam wax doomam mu ne ko yaa bunayya لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يو سما دوم بول بوكال يا الله غير بوكال توين لا بون توين بي نيك سي آية بي سورة اللقمان موم لا نيو فيري آية بي نيك سي سورة الأنعام بون كاغا خامني گوم نا يا الله be pare gom yalla ma rahul ko ak bokale du bakar de ngir su nekkon bakar bonon ñun ñep am nañ problème waaye yàlla ma ne ña nga xam ne gëm nañ yàlla te seen gëm yàlla raxuñ ko ak bokkaale lanañu firil alquran bi ba nga xam ne dégg nañ ko déggin bu rafet sunna bon suñ waxee ne sunna amut solo bon naka lañoo def ba déggee alquran maa ngi oo suma bopp di oo bépp jullit ñu leen ñaan ngir yàlla ngir yàlla nañ jël sunna mi ñu teg ko si suñ kanam mi nekk suñ seetu mi nekk suñ royuwaay loolu la yàlla digal من لن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم ويرن بنغن نكال نلين في رسول الله سينن تيالا لبي أسوة حسنة موي كنيو ياكار كنيو روي سن روي كايلا دينا داو يرم ترب مدام جانغ نيو فاليو مسلنا دينا دوي وار ترب والله نجانغ القرآن nekkuloo koo xam ne dinga diisal sunna waaye fu ñu la fekk rek yaa ngee doxadal sunna ñu nekk si sunna yaa ngi leen ree te nañ oytu nañ oytu lépp loo xam ne diina indi na ko mi teg ko nga koy ree mun na laa jénne si islaam doo nekkati julli wallah lu mel ni kaala yi dangaa gis nit ñi kaalaw am ñoo xam ne dañ la nee tooñ di lay wax ne ah xanaa yow moom yëgoo tàngaay bi wala lu mel ni sikkiñ mu ne a ah, ak sa sikkiñi béy bii ah wala nga ñëw emal sa tubéy bi laalut sa doojoor gaa ñu lan ma ñàkk suma ndey duma ma laal suuf yaa ngeen ree na lii lépp yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko indi foog naa sa kilifa sa kilifa koo fonk su fi indi woon dara doo ko ree waaye lu tax nga war ree lii la xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko indi ñàkk yar paase ko loolu tax ñu ngi ne oo di leen ñaax ne soo bëggee diine ju joo xam ne soo taseeg sa borom nga gañe soo taseeg sa borom nga ree mooy ngoyal si sunna jàppal si sunna déglu munaafiq yi lañ waxoon yàlla jénne leen si islaam suratu tawba suratu tawba xam nga lañ waxoon lañu waxoon mooy ne lan mosuma gis góor yu yàmbaree seen biir rëy bëgg lekk ba jot ñii ba paase ñii ñan la moo wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ay àndandooram alquran lu mu wax qad kafartum baada imanikum laa taatadiru qad kafartum baada imanikum bu leen joxe ngànt yéen weddi ngeen bu ngeen gomee yàlla luñ wax yambar yi wax ji rek moo leen jénne ci islaam yàlla mu ne la tatadiru bu leen joxe ngànt mukk qad kafartum wér na péng na yéen weddi ngeen yàlla baada imanikum gannaaw bu ngeen gomee yàlla ba pare bon bu leen ree sunna sunna kenn du ko ree képp koo xam ne sa kalifa indi na fi dara saxal ko fi looy def mooy dundal ko te amut kalifa bu jot yonent bi alayhi salatu wassalaam mange daniel suma kadu de nyani yalla subhanahu wa ta'ala sum nyorey mi reñe si kitab wa sunna ala fahmi abi bakr wa umar ya nani ko yalla defal rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ñu ngey jéggalu suñ fi waxé wax jo xamné dafa ñagas ñu ngey jéggalu suñ yéne rek moy defar ya nañ yàlla defar ñun ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh